salaamaaleykum amante net Dakar Buzz ñu ngi leen di nuyu leen siyaar ñu ngi fii nag ci stade Demba Diop stade bu mag bi bi nga xam ne làmb junaam na fi tey nag Pape Abdou Fall woonu fi war fi def face à face ci entre Papa Sow ak Siteu waaye nii ma waxee yow Malick Papa saw dugg dugg si na ci stade bi wàccagul nag mi ngi ci biir maa ngi nii seen ñoom Batika gaay yi ñëpp ngi nii ëmb ko li ma naan boo xoolee Papa saw rek xam ni coful bis bi ñëw na ak en masse ñoom war a àndal kenn manqué wul. piiment de Fass Malick topp ma ma xool mu nuyu Batika entretanda parce que Batika ku xam ne diggante ba Papa Sow Batika Batika lay siyaar Batika siyaar naa la waaw jàmbaar ñu ngi leen di fay bu wér a wér ñu ngi leen di sant di leen gërëm waaw tey nan ngeen nan ngeen ëmbee champion bi indi ko waaw indi nañu Papa ci yar ak teggin ak discipline comme li amoon si stade bi ba ñu fu mu ne fépp ñu teg dañu ne ci place am de lu ngeen wax li dañu ñu kenn jotewu ñoo kenn xam naa li ñu indee Papa Sow dañu kontaan ndax indi bi musul boo ko indiyee barke alxuraanu karim indi nañ ko ci jàmm indi ko ci salaamatan billaahi wallaahi te amuñu ci nag raf-raf wala ci am xel ñaar barke alxuraan ko ñëw nañu waa indi ak yar ak teggin duñu fuñ ñu yemloo fa la ñuy yemloo coow ñu histoire ñu yàlla may ñu ndam am de ñu dem yóbbuwaat ko parcelle. mais est-ce que le vrai ñëw na. non déggoo li ma la piment moo ñëw. piment double bi moo ñëwaat barke alxuraan ko amuñu sax ay xel ñaar billaahi wallaahi taala boo ma xoolee man mi demoon ba nga boo ma sama boo ma sama sama sama sama kii rek sama état rek ngay xool te su ma amee état 100 pour cent kii am na ko 900 pour cent. Ouza dégg di champion di ndaaraan moom tam def lu ne ci làmb te ku koy ci ginnaaw waaw maa ngi baax sama lépp a ñëw ak xel mu dal vraiment macha allah xel mu dal lañ ñëwee yar ak teggin xam nga di ko ñaan dal suñu borom may ko ndam di si barke Cheikh Khadim waaw waaw xam nañ ko baax mais champion la mais bokkuñu quoi papa moom dañ ko ñaari suñu borom defal ko car rek tarkindaa bi ngeen dajal non mais bokkul li Batika war a taaj taajaral ah. ndam rek lañ am ci boobu soobee suñu Tuubaa Mbàkke kon moo ko ah. moom kay moom tawfeex lañ am ci barke Cheikh Khadim Baaw Malick dégg nga slogan boobu ndeysaan ndeysaan junior Papa Sow dugg si na Papa Sow ngeen seen nii mu sol koppati bu weex jël na léegi benn perkaal daal di koy fëgg daal di koy tëral ki ngeen noonu Papa Sow ngi def ay xarfa xuufaam waaye Papa Sow daal li wétawur mooy respecté na heure bi gis am na benn bitel bu mu teg ca kanamam. Papa Sow toog na ci siège bi laal benn percal boo xam ne nag percal bi la dendal cey làmb papa nga yëkkati loxo ba papa nga yëkkati loxo ba cey Papa Sow le piment ji ñëpp a saf kaani waaye moom lañ ko tuddee le papa ngi noonu. cey làmb tey fii ci stade Marius Ndiaye Pape Abdou Fall woonu fi war fee def face to face ci diggante Papa saw mi nga xam ne daa monté écurie bu bees écurie bi tudd Wereng Siling jàmbaar ca waar wa cey Papa waaye si tey xale bi lamsaar bi tarkindaa bi dikkagul tarkindaa bi ñëwagul waaye daal li wër te Papa ñëw na papa nag koo xam xam ko ci inspecteur papa ngay jaay ñu ngi tëkk asiko yi jaay waa jaayu bii mooy sotteem bu njëkk ginnaaw boobu soso écrit tombeeg mu génn écrit face bii mooy sotteem bu njëkk moo tax làmb ji du ko caaxaanee làmb ji du ko caaxaanee ndax bii mooy sotteem bu njëkk ginnaaw boobu soso écrit bu bees bi waaye ceeki mi dajal ndaanaan la ci wàllu làmb ceeki mi dajal bi muy dugg ci làmb ñëpp kenn yaakaar woon mu yegg si fii moom Siteu waaye jomam fitam njàmbaaram mën bisam moo koy indi mu ne nga xam ni lim naan loo gën waaw am nii ma ngi taxawal nag ñoo ëmb Papa saw indi ko ma ngi ci Bastafa Gueye muy naan nekk écurie Fass nekkoon écurie Fass ku ne xam diggante ak Papa saw du nu ñaar kenn leen bas nuyu naa la. Sam nuyu naa la. maa nga jàmm. waaw maa si jàmm alhamdulilah ngeen ñëwee tey. waaw préparé rek indi sunu mbër boo xoolee nga xam ne mu ngi ci état di ñaan yàlla yàlla may ñu ndam waaw. xale ngeen di dajal. mais Papa du mag dafa teel a bëre rek waaw. dafa teel moo mag Siteu. ah moo mag Siteu. waaw non Siteu xale la mais Papa Sow am na am na doole mun na bëre ñeme na te ragalul xam nga loolu moo solo ci mbër loolu rek moo ci am solo. ak écurie bu bees bi du nekk pression ci moom. waaw non amul pression parce que écurie bu bees ay nit yoo tàmm nekkal ngay gisaat même tet yi la xam ne tàmm nañ nekk. kon amul dara amul benn pression yàgg nañ nekk ensemble peut-être dañ ko renouveler rek affaire yooyu quoi mu am écurie affaire yooyu mais benn la yàgg nañ nekk gars yi quoi. dégg naa la lépp jàmm. dafa mel ne moral est bon de. oui moral très bon kay ñun rag muy gaaw rek affaire bi mafia bi amul sëral si day xaar sunu rakk la day xaar ba si kanam. tarkindaa la de. tarkindaa amul rag muy gaaw moo am rag muy gaaw. nga ne rang gaaw ba di ko ne tàcc tàccaara waaw si cadre bëre bi écrit ñoom moom lay wax mais man sama secteur mafia rang muy gaaw la mbedd bi. est-ce day gaaw waaw tout tànk la day xaar ba si kanam nan nampaat ba feragul nan namp waaw lay wax sita sita mooy rakk la rek na xaar ba si kanam tuuti waaw ut beneen yoon. dégg nga nee na sita rakk la na xaar jël naa tabaage jël sànq usa deux wax aan ak moom muy ndaanaan di kenn koo xam ne moom it kenn du ko réew mi.

ren Demba Fati ren am am koo faral Papa Sow laa faral ah Papa Sow laa faral Papa Sow mooy sa waaw waaw loo ko yabee tey ah la gañe rek moom du baax ah. waaw waaw noo tudd Ayda tudd bëgg nag ku ma jox dara moom nga gañe moom jox ma xaalis rek doomu jaamu laa dama baax dama baax moo tax ndeysaan dégg nga siñoor mi ngi may laaj xaalis Ayda ngi may laaj xaalis Ayda ab jëndal ndox bi ba kanam waa Malick ni ma la ko waxee rek ñoo ngi fii ci stade maris Ndiaye war fi def face to face bi dox ci diggante Papa saw ak Siteu waaye ma fekk fi nag sama mag sama yaay sax laay wax grand grande dame toujours grande dame un banlieusard ku gëm boppam koo xam ne bi muy ñëw ci làmb ji wéetoon na ci waaye tey marqué na empreinte ba ku ne bëgg a dugg ci làmb kuy jigéen maman maa ngi lay nuyu. waaw euh, maa lay fay sama sa sa yaay laa yow. yow moom sa yaay laa maa ngi lay nuyu bu baax a baax et puis di la féliciter bu baax di am kontaante ak mbégte nga nekk doomu ginnaaw raay nekk sama doom gëm sa bopp di góorgóorlu sa liggéey vraiment bi ma la gisee kontaan naa bu baax a baax di la ñaanal bu baax a baax a baax di la wax euh, fi nga bokk nii rek nga mën a mel ci famille bu baax nga bokkum mais kontaan naa bu baax a baax maa ngi lay fay. maa Malick xamoo leen ma kii moom a xam moo ma yar mooy sama yaay maa ca gannaaw raay la. waaw muy nit ku baax wax nit ku am valeur ku mën a def ci social yàlla na jaamam yàgg lu waral teewaay bi. waaw mais buñ nag ginnaaw buñ sante yàlla julli ci Seydina Mohamed sangub sang yi ñu ngi sant suñu ñaari waajur euh, di santaat bu baax a baax yàlla mi ñu may fekkee euh, ba tey ji ñu toog fi di waxaat ak yéen di ñaanal ñi nga xam ne dañoo bokkoon nekk ci làmb ji di tey tey ji ñu wuyu suñu borom euh, ku si mel ni du yaay kat yi ak ñoo xool mi fi jóge barki démb ak ñeneen ñëpp di leen ñaanal yàlla xare leen ci àjjana Firdawsi Euh, sama teewaay tey fii nag moo xam nga ni umpul kenn lu ma fi war a tax a teew ndax euh, président Abdou Fall dafa nekk suñu président euh, nekk nit ku baax nit ku jàmbaare ma nekk si làmb ji nag nekk seen jigéen mu jox ma cëru jigéen ba mu mat sëkk kon te jii bu ko yàlla joxee mu am bis bu tollu nii waaw ah, mais kenn waruma fee njëkk kenn waruma fee mujj tamit loolu mooy sama taxawaay ci bis bi mu taxawal na combat yu mag si diggante Papa Sow ak Siteu di ñaari xale yu am jom ñaari xale yu gëm seen bopp ñaari xale yu am ambiance et ñaari xale yu defar làmb loolu moo ma fi tax a teew tey jii. mais sama yaay ci lu mu ne parce que nam nañ bis si nga daan taxawal sama yaay ci lu mu ne. si jàmm nag euh, nekk si liggéey bu bëri ak euh, ñàkk a toog xam nga làmb dafa fiir làmb dafa fiir mënut a bokk ak dara ndax euh, boo taxawalee làmb mën naa ne 3 mois yëpp ci làmb ji da ngay concentré wu mais soo amee yeneen liggéey yoo xam ne da ngay génn mais làmb ji day daal di sooxe. te làmb ji nag dafa metti metti boo xam ne kenn mënatu cee toog carrément ndax euh, promoteur yi euh, li ñuy daj dafa metti lool te comme xam nga ñun jigéen lañ tamit mënuñoo liggéey suñu xaalis ba pare ñëw sànni ko si làmb ji waat moo tax ñu xaw a tuuti rek daal di wu ci benn liggéey bi xam naa ba ci kanam tuuti rek nañ xaar sama yaay mu taxaw laa benn journée a si làmb laa bokk ci làmb laa bokk ñoo ngi toog di xool ay pexe suñu demee ba paxe taxaw rek ñu daal di taxawal li ñuy liggéey daal di sóobu ci làmb ji ndax suñuy doom lañ suñuy doom lañ yàgg nañ si liggéey booy dox sax des fois da ngay am problème yow xam nga si dara ñun ñu dëkk si banlieue bi eh, xale yëpp dañuy ñëw pour nga tëgg leen waaw mais dañuy dañuy dañuy dañuy dem taxani rek mais ñu amee say bu baax rek buñu dikkee tasaare ko bokk koog ñëpp incha allahu rabbi waaw. kontaan naa merci beaucoup fii man nag naa la jël waxtaan ci loolu. waaw d' accord incha allahu rabbi. kontaan naa merci beaucoup. maa ngi toog ak sunu papa sunu doyen El Hadj Ngagne Diagne père Ngagne maa ngi lay balaa maax dara dama lay félicité li nga sañse waaye may tuddee naa la ko <laughs> tuddee naa ko. waaw euh, ñun taalibi taalibi xaadimu rasul la ñu waaw. ba pare tey da ngaa dem Daaru Salaam nag tey. waaw waaw xam nga sëñ Muntaxa nag euh, foo fu ñu toll dañ koy xëñcu. waaw waaw. waaw tey bu ñu ñëwee nag ci combat bi fi indi Papa Sow Siteu. muy événement di combat boo xam ne moo ñu jëm ci indépendance du Sénégal 60 ans. arène sénégalaise depuis cinquante neuf la ñu njëkk a xalaat pour defar arène nationale en 1960 ci li ñu njëkk am ministre secrétaire d'État chargé de la jeunesse et des sports muy équivalent Matar Ba 1960 lu ñu codifié lamb pour def ko sport 60 ans ñu jëm ci indépendance ñu ne Cité ak Papa Sow ñoo koy bëri c'est le combat de l'indépendance tey ngeen dégg xam bu ngeen mës dégg tey boo ma doon digal ci aspect combat bi enjeu bi. enjeu bi dafa énorme Papa Sow dafa ñëw comme leader d'écurie joge Fass créer écurie war a indil écurie bi cadeau euh, Siteu nekk leaderu Lamsar bii muy combat capital pour mu confirmer leadership am ci Lamsar pour xam ne ñoom ñoom nees yaakaar nañ ko ñoom fëgg la yaakaar nañ ko loolu mooy enjeu combat bi d'abord enjeu bi d'abord c'est leur écurie enjeu bi d' abord c' est euh, cour des parce que Siteu foofu lay aspiré Papa Sow déjà mi ngi ci cour des grands ku bëreeg Balla Gaye ku bëreeg Modou ku bëreek Lac de Guiers 2 ah yaa ngi ci kaw. mais du diis ci côté papa ak bu bees bi ak bii di premier sortie warul nekk pression ci moom ndax euh, dafa lambe dafa mbër yoo xam dañu lambe làmb du leen du def pression ci ñoom ku ku ku ku jàkkaarloog Balla Gaye jàkkaarloog Ama Baldé làmb du diis ci amul warul mën am pression. xanaa kay lend rek la euh, jóge na Fass dem fële xëy na am na lu muy sóoraale bëggul bëggul bëggul ubbee defet xëy na mën na joué tuuti ci ci ci ci ci mais loolu da ko war a motiver normalement. du nekk si pression ci tam ci ku bëgg Ama Baldé mënoo ko am mënoo mënoo ko am ñu jox la Papa Sow. Papa daan Papa te Ama daan Papa. Siteu du am pression ci làmb. ci ku bëgg Ama. Siteu amul pression ci làmb dañu làmbe xale yi ma lay wax dañu làmbe dafa am mbër yoo xam làmbe wuñu mais ñii dañu làmbe ñii. Euh, plaisir la pour ñuy bëre avant ñuy bëgg ñuy doon bër plaisir la pour ñuy bëre euh, ci xale yi nga xam ne xame nañ leen ci mbapat ci la ñu bokk xam nga am na mbër yoo xam ne tey fu ñu mbapatee xamoo ko waaye ñii ñun dañu xam fu ñu mbapatee moo tax ay xale lañ yoo xam ne bés du rëy ci ñoom et puis dañu lambe waay Pape Abdou Fall bu ñëwee parce que li actuellement mooy crème lamb ji lii lañ fi monté loo wax ci Pape du di ko féliciter Euh, yàlla na ñu bari ñu euh, ñu mel ni moom yàlla nañu gën a bari ci làmb ji ndax combat événementiel yi di ñëw lii mooy coow li wax ji tamit li ci des mooy booy xool booy xool booy xool ba xool ko euh, yeneen promoteurs yi ñi ngi góorgóorlu waaye mbër yi ñoo leen war a dimbali waaw yi ñoo war a dimbali promoteurs yi pour ñu mën leen jot tëgg leen sinon lii tooy ci mbër yi lay jóge waaw. mel na ñu naan làmb dina doonoo xamul làmb ngi dund ba tey de lii lépp ci yokkute làmb. non ci soubassement la dëkk. làmb gënoon na métti nii toogoon nañ fi daan fi toog 6 mois du am combat Alaaji Amet Diène moo ñëw indi combat 10 combat yi ngay gis Alaaji Amet Diène ko indi entre mil francs combat bu ne 100 francs moo ko lancé Baboy ak euh, Jallo ñoo lancé waat làmb Alaaji Amet Diène tëgg ko fayoon leen 250 000 ci temps boobu. ba tey amateur di wax ci diggante Balla Gaye Boy Niang. waaw Balla Gaye Boy. ñaa Niang waaw Balla Gaye Boy Niang euh, dafa war a man ba Balla Gaye sax moo war a démarché Boy ñaa